kàddub alquran dafa dëggu fa dëggu yem ci ay nettaleem maanu fa maanu te yem ci ay atteem waaye tamit ay laayaam leer ak taaru fa taaru yem alquran yéeme na yéeme boo xamante ne du benn nit wala jinne moo mën indi lu ko niru alquran dafa nose fa nose yem ba tax na doo ci fekk benn waroo wala contradiction wala luy jaxasoo borom bi mu ne alquran ji bu nekkoon ni dafa wàcc ci keneen kudul yàlla da ngeen ci fekk waroo bu bëri lool alquran dafa mat fa mat yem borom bi mu ne sàgg newuñ ci bile téere benn mbir moo xaat ba léegi ni ñun ñoo wàccee ci yow alquran waaye ñun ñoo koy sàmm alquran borom bi moo ko sàmm fa sàmm yem ci ñu ko ci yokk wala ñu ciy wàññi borom bi mu ne ñun kat ñun ñoo wàccee ci yow bile fàttali di alquran waaye ñun ñoo koy sàmm